li wund bés bi dafa jublu jëm lépp si wàllu ndimbal bu ñu social ndimbal la waaye social bi dañ koy indi si ñaari parti bi si des bi njëkk mooy si côté sanitaire muy wàllum santé euh, am nañ fi activité bu ñu doon def euh, euh, consultation bucco-dentaire jëm si wàllu bëñ bi ñu xoolee cible bi ñu bëggoon vraiment dépassé nañu ko ndax am nañ cinq box mu cinq bureau yoo xamee ñi nga doon consulter quatre bureau yi pour population bi la benn bureau bi ñu jegleel ko donga daara yi bu ñu xoolee quatre bureaux yi nga xamee ne ñoo doon considérer population bi moom am nañ lu dépassé cinq personnes euh, box bi nga xame ne dañ ko bàyyi woon pour donga daara yi pour l'instant mi ngi ci cent ba jëm cent vingt kon gis nañ ne vraiment am nañ ci réussir cent pour cent beneen bi ñu ngi doon def don de sang ci wàllu may deret nga xamee ne waa Seexul Xaddim ñoo ko doon ñoo ko doon jël ci fii ndax ñëpp ràññee nañ ne euh, banque de sang yi nga xam ne ñoo nekk ci hôpital yi jamono bu ne dañuy wax ne dañu am problème mu traite moo tax ñu organiser woon association des relais ànd ak daayira bi xidmatul xaddim ñu collaborer ñëw fii def fi activité bi ñoom it ñi ngi amoon cible cinquante postes pour l'instant bu ñuy xool ñu ngi naan cent yi deux moo ko manqué te am na ñuy woote léegi ne dañoo war a ñëw def si kon dañuy wax ne activité boobu vraiment réussir nañ ko à cent pour cent Euh, bi ci ëpp solo nag mooy semi daara bi nga xamee ne dañ ko war a def ginnaaw bu jullee tàkkusaan ba noppi semi daara day jàppandal donga bi ngir mu mën a faju Euh, ndax ñëpp xam ne na donga daara dañuy jël sëriñ daara bi jox ko ci téeméeri donga wala lu mat juróom ñetti fukki donga bàyyi ko ak moom moom mi nga xamee ne mooy yore daara ji ak njabootam képp pour mu jël leen à 100 cent day xaw a jafe kon bu si doolee ñeneen day gën a métti moo waral ñun association bi ak daayira bi xidmatul xaddim ñu ne dinañ jéem a rouler enrouler 1000 euh, donga muy junni donga ñu dugal leen si semi daara dugal leen mutuelle de santé loolu nag niñ ko bëggee defee mooy daa donga daara bu ne war nañ ko cotiser mille francs léegi bu dee mille dongo yooyu day dem si 1 million. 1 million boobu nag jàpp nañ ne mën nañ ne 50 pour cent yi commencé naa dugg ndax bon volonté yi ñi ngi ñëw. relais yi ak waa daay daayira xidmatul xadim ñoom seen membre ci boppam ñoom it ñi ngi ñëw kon ñoom tooguñu ne nag dañuy woo bonne volonté yi ñoom it dañuy ñëw def ci seen doole. loolu nag ñuy woo mbooleem askan bi yëpp waa Touba mais waa Sénégal la ñuy wax ndax dongo daara vraiment war nañ ko gën a jox cër. ndax dañuy gis donc euh, sëriñ daara yi bala ñu indi donga dañuy bàyyi ba am juróom ba juróom-benni dong yu tëddandoo ñu indi leen loolu nag bi ñu xoolee li ko waral mooy ñàkk moyen pour indi donga yi ñuy faju moo tax ñu bëgg leen a boole indeendoo leen bu ñu ñëwee hôpital yi donga bu ñëw du fay tige waaye nag wàllum ordonnance ñoom ñoo koy jël en charge te bu fekkee dongo bu ne danga nga si war a financer 6000 ba 7000 daanaka da ngay dem ba 30000 wala 35000 si si si ci ci par dongo day métti moo tax semi daara boobu ñu ngi woo ñëpp ñu jéem a def comme nii association des relais ak daayira xidmatul xadim jël dongo yi en charge lu toll si junni dongo wax dëgg yàlla dugg leen si semi daara boobu ñu ngi woo ñëpp ñu jël si exemple bi lu am solo la. buñ ko defee jàpp naa ne dinañ faju ci normal ndax donga daara yi vraiment dañuy am ay jàngoro yoo xamee ne day métti lool mais bu ñu amee duggee ci semi daara dina yombal seen paj mi waaw association bi yàgg na taxawu daara waaye côté bi mu doon demee mooy ci fóotum daara euh, daan nañ def chaque mois ñu génn dem ci dem ci biti fóotal benn daara waaye dañuy gis ne loolu rek doyul ndax ñu koy def bari na ba daara bi nga xamee ne mooy xidmatul xaddim ñoom ñoo gën a focaliser wàllum daara ndax association des relais euh, li si ëpp si côté santé la ëpp lu muy lu muy lu muy dox waaye nag wàllum daara da cee duggoon di fóotal daara yi. léegi nag bi ñu xalaatee ne nag comme ñun dañu ne si wàllu santé te vraiment am na benn filière boo xam ne ubbi nañ ko ñu tudd ko mutuelle de santé mutuelle de santé boobu door a danga war see am wàll moo tax ñu sóobu ci. pour dugal si dongo yi ànd ko ak daayira xidmatul ni bi nga xamee ne vraiment ñoom it seen taxawaay fii si tubaaxee xeer ñëpp ñëpp yëg nañ ko en même temps ñëpp rafetlu nañu ko. lii daal vraiment jaamu yàlla la tey it vraiment lu rafet la ndax ñun ñi taxaw di wax kenn ku ne jaana si daara ñëpp gis nañ ne daara metti na. Euh, bàyyi ndey bàyyi bàyyi dong dafa dafa doy waaye wé wéradi te fajuwoo dafa metti kon nag maa ngi woo askan bi yëpp. di woo Sénégalais yëpp waaye di woo bonne volonté yi ndax 1000 euh, dongo si 1 million jàpp naa ne kenn rek waroon na koo mën a doxee. kon buñ bu joxee exemple di dajale ay 1000 ak i 2000 ba mat war a mat 1 million yaakaar naa ne bon volonté yi nga xam ne ñi ngi Sénégal te ñi si ëpp di doon ay dongo daara surtout fii ci Touba bonne volonté yi ñu fi dégg ñëpp ay doomi daara lañ kon ñoom it nañu gën a jàppale daara yi semi daara bi mi ngi fi waaye nañu jàppale dongo yi si seen tëdduwaay yi ndax daara jooy dem léeg problème mu mbaar dañ koy am pool li mu tëdd waaye dañ koy am dangay dem fekk fa ñuy tëdd am ay fel te loolu wax dëgg yàlla daara war naa mën a dépasser foofu kon nag ñi ngi woo bonne volonté yëpp ñu jël exemple si exemplaire bii nga xamee ne joxe nañ ko muy association des relais ak daayira Xidmatul Xadim muy journée sociale bii nga xam ne dañ koy def muy le matin ak le soir yëpp vraiment ñu coppee si loolu di ko def foofu daal lay jàllale sama message di wax ne nuyu ñëpp di sant ñëpp di wax ne depuis démb ba léegi vraiment ñëpp ñi ngi fii di jàpp si liggéey bi muy góor di jigéen di mag di ndaw muy relais di na gox di sëriñu daara di imam di médecin yi di sage-femme di infirmier yi kenn bàyyiwul kon ñëpp sant bu baax di leen gërëm. tey dañoo woote woon consultation bucco-dentaire suivi de don de médicaments plus don de sang tamit ci ngoon gi dañuy def semi pour les talibés def leen couverture à 80 pour cent ci seen wér-gu-yaram. ñun bi ñu gisee patients yi dañoo choqué wu woon sax vu que ñun defuñu woon benn agence bi via euh, les télécommunications lañ doon def seen transformation mais gis nañ ni askan bi yëpp woy wuyu si nañu vraiment on est satisfait de la population parce kii la ndam la daal. association bi depuis bu ñu ko créé lépp si dongo yi dañ leen daan di fóotal di dem si hôpitaux yi di raxas hôpital xeera bi di ko raxasal di dem si ndongo yi di leen di fóotal kon donc lii ni def du acte bu ñuy njëkk a def yàgg nañ koy def mais bi ñu xoolee xam ne kat am na beneen kuréel boo xam ne mooy daara xidma moom ci xayra la nekk ak association des ñu bokk même activité bu ñuy def ñu ne pourquoi pas ñu boole seeni seeni bëgg-bëgg mu doon benn ci lañ xalaatee ne kat dañuy def semi daara mooy def couverture médicale universelle mooy inscrire xale yi ci biir euh, ci biir couverture boobu noonu à 80 pour cent ci seen wér-gu-yaram message bi may joxe nag sur surtout sur l'hygiène bucco-dentaire laa koy laa koy lancé parce que bëñ dafa sensible dafa dafa rattaché wu à beaucoup des nerfs et des vaisseaux te euh, population bi war nañu veiller à ce que ñuy di seet di dentiste durant trois mois wala 6 mois ñuy xool seen seen ay gémmiñ ñu gën a ñu gën ko xool seen hygiène bi ko dentaire parce que hygiène bi ko dentaire ñu koy saytu lu important la kon nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax si loolu noonu ñuy dem di def seen de chaque six mois bu ñu ko mënee def wala chaque un an voilà message boobu lay lancé ak si euh, brossage yi ñuy faral di brosse chaque repas bu ñu ko mënee def wala deux fois dans dans la journée. waaw daara ji de li taral li waral teewaayam fii ci biir hôpital bi dañoo ànd ak benn. Euh, association bu ñuy wax association des relais des xayre ngir taxawal benn social boo xam ne euh, dañuy bëgg daara gis ci boppam ndax daara dafa tumuranke ci wàllum faj loolu ñoo tax ñaari mbooloo yooyu ànd ngir taxawu daara ñu gis ne nag euh, ci daara bokk na ci ay jafe-jafe muy wàllu faj rawatina lu jëm ci wàllu bëñ ñu xaw ko sofantal lool wala mu xaw a metti ci daara waaye mu xaw a tumuranke ñu gis ne ñu gis ne acte boobu kon taxawal ko lu baax la euh, ñu taxawal ko ànd ko association de relais de xayra ak poste santé bu xayra bii nga xam ne moom lañ moo ñu yaatal ci biir postom boole ci ab don de muy wàllu maye deret te kenn ku nekk xam na ne maye deret li nga xam ne moo nekk ci xelu nit ñi rek wala ci ni ko nit ñi di jàmm jàngate rek ci wér yaram nga ca nekk asamaak li nga xam ne moom la ci borom bi subhaanahu wa taala wax ci tiyaaba ja jay nekk ba ko ñetteel Euh, ñu ne woon euh, ginnaaw daara dafa tumaranke ci wàllum faj ñu ne kon ci bis bi ci lañ bëgg a recenser lu tolloog 1000 donga yoo xam ne dañ leen di dugal ci mutuelle de santé bi ñuy faju à 80 pour cent pir ci pour ci santé bu ñu mën a dem ci mu aju ci biir mutuelle de santé bi. ñu ne nag nañ ko def nañ ci boole wàllum faj bañ di consultation gratuite bi waaye boole boolewaale ci wàllum don de sang bi muy mayee deret bi. loolu mooy sababu bu la tax ñu teew fii ci biir opitaal bi tey. dañ ne dong bu ne danañ ko danañ ko participer 1000 francs 1000 francs yooyu nag mooy ci ci diirub at ci la ciy faju diirub at moomu nag euh, bu xasee joxe 1000 francs yi dootu ci joxewaat leneen lu dul euh, ak 80 pour cent yi yi nga xam ne ci la ko hôpital bi di di jëlal yi ci des nag mooy 1000 francs yi nga xam ne moom la participer woon. xam ne kon buy faju ji. Euh, au lieu que mu daan mu ñu daggal ordonnance su 5000 mu war a fay 5000 yi waaye 1000 francs lay fay ca euh, biir ordonnance boobu nga xam ne moom lañ ko fay moom lañ ko daggal. kon loolu moo waral sababu tey yii ñu feew ngir dox lu mel noonu ba loola yàlla mën koo sottil incha allahu taala kon ñi ngi ñaan képp koo xam ne xëy na mu ngi dégg suñu kàddu ak fu mu ko mën a déggee te euh, nekk social kat wala nekk koo xam ne ni ab bonne volonté la ci dimbali woo daara wala dimbale lépp loo xam ne day doxal daara loola it ñu ngi ko ci tàllal loxo bu baax a baax ndax taxawu daara rek moo ñu tax a jóg ndax dañoo gis ne dëkkub sëriñ bi kat euh, la taxoon sëriñ bi faggu ko mooy daara ndax dafa waxoon ne wajaxalhu ba maskana taallumi wa de al fikrati wa tafahum ginnaaw barabub daara la nag laneen lu ca wàll si waan nag dafa nekk lu mun ta ñàkk li liñ naan mawdexal fikra mawdexal fikra ji moom man naa yaatu mën naa dugg ci santé mën naa dugg ci ministre boobaa bi mën naa dugg ci leneen ak loo xam ne daara da koy soxla te mënu koo ñàkk kon li ñun li ñuy suñu warugar mooy ñu lancer message bi dox jëm ca la ca nag ñu bàyyi ci loxo yàlla tey ñaan yàlla mottali ko waaye am nañ yaakaar da daal suur ne tay bi incha allahu taala ba ñu fee jógee li nga xam ne moo ñu muy bi ñu tax a jóg l incha allah danañ ko satisfaire yi ñëpp bu université bu Cheikh Anta Diop ak 53e promo d'odontologie à la faculté de médecine de l'UCAD ñu ànd ak association des relais poste de santé Xayra ñu ñëwoon fi nag amal benn journée de consultation socio-dentaire boo xam ni ñetti association yi ma la wax yëpp ñoo ko ànd booloo ngir lan euh, ñi dëkk ci Touba Xayra ak li ko wër ñu mën leen a xool ñi xam ne ñoo ci am jafe-jafe bañ te ñu mën ko saafara ñu faj leen jox leen ay garab ñi ci xam ne dañuy soxla yenn li leen mën a xelal ci wàllu ñuy topp seen bañ ñu amal ko ak yeneen xalaat yoo xam lépp loo xam ne mën nañ koo def ngir gën a ñoŋal lépp lu jëm ci wàllu bëñ ci population bi nekk ci environnement bi rek ñu ñu ñu baaxee leen ko laabare leen ko loolu moo doon teewaay tey. association des su chirurgiens dentistes comme ni ma la ko waxee comme ni ko ni mu wuyoo tur bi rek. étudiants yi nga xam ni faculté de médecine lañ nekk département odontologie ñoo ko ñoo ko formé woo ñoo ko formé léegi nag comme ci seen i activité yi nga xam ne moom lañuy ñuy faral amal ci at bi yii da ciy bokk nga xam ne dañuy def ay consultation consultation yi nag mën na nekk ci gox yu bari ci Sénégal te it dañ koy faral di ànd ak yeneen association yu bari daanaka ci cadre boobu rek tey lañ ñëw ànd kook 53e promo bu odonto bu nekk fac médecine ànd kook association relais poste de santé xayra amal ko comme niñ koy amale ci yeneen gox yi daanaka nekkul loo xam du njëkk la waaye ñu baaxoo di def la di ko ànd ak yenn association yu bari yu yëngatu ci wàllu yi ci ci ci Sénégal bi yëpp. jamono yi nag dafa guñ xayma bi dëgg-dëgg waaye bi ñuy door liñ tënkoon mooy euh, lu toll ci deux cent cinquante personnes lañ tënkoon ngir xool leen waaye biñ demee ba ci digg bi xool nañ ni deux cent cinquante ñu tënkoon. romb nañ ko ndax liñ prévoir au bi li si yeeg ñu defoon ba baare ko gis nañ ni maral nañ lisi si ba rombaat ko ba jëlaat ñu bari bari. jafe-jafe ñi gën a euh, kii moom ñaar la muy lu jëm ci wàllu bëñ bu bët moom la ñuy wax carie dentaire ak lu jëm ci wàllu feebaru siiñ ak li li li mu àndal yëpp muy maladie parodontale daanaka loolu moo nekk. jàngoro yi nga xam ne bokk nañ ci yëpp yiñ ci yiñ ci yiñ rencontré te loolu nag li koy joxe li ci ëpp mooy toppatoo dimin goo xam ne demeewul noonu waaw toppatoo dimin gu demee noonu moo joxe loolu kon dañuy profitoo ci loolu di soññ ñëpp di ñaaxaat euh, tàmbalee ko ci waa xayra ak tubaab gi yëpp ba ci Sénégal gi yëpp ngir ñu gën a farluwaat ci loolu li ci gën a yomb mooy di boroosu ci waxtu yi nga xam ni moom lañ conseillé ñu koy def boroosu bi baax na waaye am na ci ñoo xam ne amaana boroosu bi duñ ko jotee soccu mi ngi fi li boros mën mën na ko kon day gën ñi nga xam ne boros bi day xaw jafe ci ñoom tañ jotee socc ñu socc suba ak ngoon comme ni nii boros waxtu ñuy boros ñu def ko noonu ku mën a boole ñaari tamit xayrun beneen bi mooy di faral di dem ci dentiste lu bari lum néew néew ñaari yoon ci at mi wala mënul ñàkk benn yoon ci at mi nga dem nga xam ne moom dina mën a xool bu xoolee sa gimi dina xam ne ah lii kët amaana buñ ko tàmbalee naa am luñ jur te bu yàggee mën na yeneen jafe-jafe nga xam dina ko mën a teel a prévenir faj ko ba nga xam ne lor yëpp du la ci am. bu loolu weesoo aussi ñam yi lekk aussi lu ci mel ne di lekkant lu bari ak ñamu suukar yu bari yi yooyu aussi ñu ci gën di bàyyi xal di ko moytu ndax bokk na ci ni nga xam ne dina gën a yombal nit ki am feebaru bëñ wala am feebaru jàngoro boo xam ne signe bi lay lay jàpp ci gàttal daal loolu la ñuy baaxee waa waa waa askan wi rek.